ndax tal nañ jamono ji xaatimaat ay accord de pêche lor askanu Sénégal ñi jotandi ci jën loolee di laaj boo xamante ne acteur yu pêche artisanale yi ñoo ngi koy dëkk di joytu teewaay bu bëri lool yu bateau industriel yi ci suñuy ndox nag nekk loo xamante ne ñoo ngi koy ñaawlu bu baax. waruñu signé ay licence état kan du ko wax doo def nangam mais signé ay licence moo warul si jamono bi ñu toll aw jën amatul jën wi amatul nit ñi xamatuñu fu ñu jëm. gis ngeen mbirum même immigration clandestine bi ngeen di dégg léegi bu jëkkoon mool yi ñoo daa yóbbu nit ñi mais ay mool ñu ngi dugg si biir gaal yi sax di dem pourquoi parce que aw jën liggéey moo fi amul. mu nekk fii ci Mbour ca Ndar Géej wala sax ca Casamance acteur yi napp gi moom taxaw temb lañ jëf ci li ni waaye bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur départemental bu réseau yu nappkat bu Wakaam moom xamle na ni du ko bett lool bu fekkee ne rek autorité yi xaatim nañ waat tey jile yeneen ak accord de pêche. ñun aussi bëgguñu euh, politique gu 16 vide fu ñu oo dinañ dem ay responsable la ñun ñoo wax ne ñooy falu si yenn bërëb yi donc fu ñu manti oo groupe yooyu dinañ dem fekk ministre bi ñu wax mais man de buñ signé wul dina ma jaaxal trop parce que ils sont prêts loolu maa leen ko wax fii peut-être que di ngeen déggaat ne signé nañ juróom-benn wala juróom-ñaar parce que am na ñuy laaj ay ay ay licence si petit pélagique mooy jënu kaw ndox yi muy jay bi oo bi yooyu yooyu yi nga xam ne ñoo nekk si kaw ndox mi autorité yi bëri jàll nañ fi waaye jafe-jafe soxal licence de pêche yi di woy di yokku saa su ne